di leen ñaanal yàlla yërmande akub jéggal waaye nag li jiitu ci yéene gi nag mooy sant yàlla ndax bu la yàlla may nga nelaw ak jàmm yow ak jàmm santal yàlla waaye doyul moo may la nga fekkee lu mel nii nga xamante ne daaw alhamdulilah defal nañ ko ren tamit allah taala ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla yoo ko def ñu fas yéene nag jàng kaamil bi di ci ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm di ci ñaanal Afrique yàlla def fi jàmm waaye di ci ñaanal monde entier fu jullit nekk rek yàlla na yàlla defal la jàmm gannaaw bañ ci yéene nag ñi jiitu ñëpp te jéggal leen yàlla jéggal yërëm leen di ci ñaanal nag waa gox bi mag ñi nga xamante ne ñoo doon ànd liggéey bi toll mel nii ndeysaan ñu doon jàppale seen doole daa di daan teew ñun bokk ñu jotaay ñii wéri di moo leen jàpp moo tax ñu toog seen kër ñii nag génn dañoo génnaat nag yàlla na yàlla yërëm te yërëm te jégal leen ñiy wér nag yàlla may leen wér ba ñu ñëwaat si jotaay yu mel nii ala kulli xaal xale yaa ngi nii macha allah ñu ngi woo nag parents la yëpp ñu génn ndax programme bi tàmbali na su ko defee bu ñu jàngee kaamil bi rek xam ngeen ajuma dafa xat ajuma dafa xat lool waaye sant yàlla bu ñu jàngee kaamil dañuy defali ji kon nag ñu ngi ibbi kaamil bi ñu ñaan yàlla defal ñu sutura.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 alladina yuminuuna bilgaybi wa yuqimuuna alsolata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bilaaxirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun alhamdulilah ñu ngi wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte mu rëy ci xéewal gii nu yàlla mayaat di wax ñun ñëpp ñu boo ko wax alhamdulilah rabbil alamin dégguma ko de ñu wax alhamdulilah rabbil alamin wa iz ta'azanna rabbakum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid waxtu wu ngeen yége ni xéewal gi yàlla moo leen ko defal yàlla ne bu ngeen santee rek ma dolli ne ku weddi xéewal googu nag ba doo sant yàlla bu ëllëgee mu duma la duma yu métti wala iyaas billah yan ci àll musa ñu ngi nuyu imaam yi ci mbooloo mi yëpp nuyu parents d'élèves bi nekk yëpp waaye di nuyu ndongo daara yii nga xam ni ñoo doon jàng kaamil bi. ak 114 suuratul fatiha 114 suuratu yaasin lépp def ko jaamu yàlla ak hadiyatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene tàmbale xatmul quran bi kenn ku ne fa nga ne nga jàng fatiha salaatu ala bu waay mën ñetti suuri ixlaas def ko hadiyatu rasulullahi sallallahu alayhi ci mbooleem jullit bu ne ci biir suuf ak bu ne ci kaw suuf ñu nu bokkaloon di jaamu yàlla ci jadaay bi ñu tawat ñaan yàlla yëkkati leen ñoom ñépp gis naa ñu tawat sax soxla nu ñëw yal yàlla saafara leen ñu jiitu ñaan yàlla jéggalu jéggal leen waaye nag ñu ñaanal ancien élèves yi nga xam ni ku xool tànt bii ni mu mel nga xam ni wuute naa ngi daan am at mu jot ñoom la lépp ñoom la ñu ànd ak seen wajur yu baax yi yal na yàlla seen wet yàggal yàlla barkeel seen dund di ñaan rek ñëpp ñu noppi toog bu kenn jóg su su xale yu jigéen ñi ñëpp wax amin góor ñi nag noppi nañ wax dëgg yàlla góor ñi noppi nañ wax dëgg yàlla góor ñi de nii départ dal na xel noppi nañ ñu jox ñu xatmul quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم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 allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar la ilaha bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقتل الأرواح وشرابها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم آمين وبلغ الرسول النبي المصطفى الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين ربنا ومولانا من الشاهدين ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوة عنا السيئات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سوء نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان aw taawilin ala gayri ma anzaltahu aw taajilin inda tilawati aw kasarin aw saxin lisaan aw wuqufin bi gayri waqfin aw idgaamin bi gayri mudgamin aw idgaalin bi gayri bayaan فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل حال وارزقنا فضل من قرأه ماديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تخدمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان wa aminna min azabi alqabri wa min suali munkar wa nakin wa min akli didan وبيض وجوهنا يوم البعث رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقن ميزاننا بالحسنات وسبل أقدامنا على الصراط واسكنا وذا الجنان warzuqnaa jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa akrimnaa bi liqaaika yaa dayyaanu yaa dayyaanu yaa dayyaan allahumma ajcal alqur'aana alcaziima rabiica qulubina wa jalaa axzaanina wa zahaaba humuumina wa qaa'idana wa saaqana ilaa jannati naciim اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحشة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الخيرة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من زيع الأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحق بالزيادة آمالنا واقضم العافية علونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بتر عيوبنا اللهم زد تقواك زادنا وثق بك سخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا والسائل بالأمس والصدقات يا رب يا رب العالمين اللهم زد تقواك زادنا وثق بك سخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا والسائر بلاد المسلمين سنغال يا رب يا رب العالمين اللهم اجعل تقواك زادنا وتقلبك سقرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا والسائر بلاد المسلمين سنغال يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه للروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا مصطفى محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأماته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ala sayidina wa mawlana muhammadin xaatimi nabiina wa imaam almursalin wa ma yuammaru min muammarin wala yunqas min umrihi illa fi kitab اللهم عمرنا يا رب عمرا طويلا مباركا بالصحة والسلامة والسلامة والعافية والعافية والاستقامة على الكتاب والسنة والموت على حسن الخاتمة والفوز بالنعيم في الدارين والنجاة مع والنار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليه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 laa ilaha illa allah rabbul arshil azim laa ilaha illa allah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim laa ilaha illa allah al-azim al-halim laa ilaha illa allah rabbul arshil azim laa ilaha illa allah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim allahumma aydil islaam wal muslimiin wa dammir shirk wal mushrikiin allahumma arzuqna rizqan waasi'an حلالا مباركا طيبا اللهم إننا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من كبار العلماء الأعلام العاملين ومن دعاء الأولياء المحسين المحسين من أولياء المحبوبين بفضلك وجودك وخيرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ودمشق المشركين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا طيبا اللهم اننا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من كبار العلماء الاعلام العاملين ومن دعاء الاولياء المحسنين المحسنين الاولياء المحبوبين بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي من أنا منه بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد yow yàlla ñu ngi lay ñaan ci barkal alxuraan ci bés bu màgg bi le mu yowmul jumaa képp koo xam teew ne fii ak ko amul yéene teew yàlla nga ko jéggal bàkkaaram yow yàlla ñu ngay ñaan ci barkal alxuraan ci bés bu màgg bii képp koo xam ni teew na fii ak soxla bu boppam yàlla nga ko xettali yàlla lu ngay ñaan ci barke alquran ci bu màgg bii képp fi teew ak jàngoro ko ko sonal yàlla nga ko teggil ñu ngi lay ñaan ci barke alquran ci bés bu màgg bii képp koo xam ni teew na fi ak jafe-jafe àddina yàlla nga ko xettali yàlla ñu ngi ñaan ci barke ajjuma ji ci barke alquran ji suñu Sénégal gi yal na fi gën a dolli jàmm te na nañu njiit yu jub yu am yërmande bàyyi xel yàlla yàlla ñu ngay ñaan ci barke ajuma bii mbooleem koo xam ne sa njaboot mi ngi ci daar gi bés bii bu ñëwee ngi yittewoo ko lool ak ancien élève yi yittewoo ko lool liñ ci sonn yëpp yàlla na nga leen def seen téere jëf ak seen rakk yii nga xam ne ñu leen wut taxawu ko yàlla na leen xetteel yi yow yàlla ñu ngi ñaan ci barke alquran tawhid tv ca kaw ca kanam yal na nga sa bopp yow mi nga xameen loo téyee ca kaw ca kanam tawhid tv boo xam ni mi ngi taxaw alquran mi ngi taxaw jullit mi ngi liggéeyal Sénégal yàlla ñu ngi ñaan ci barke ajjuma ji mbooleem jullit fu ne ci xat-xat yal na leen xettali yow yàlla ñu ngi ñaan ci barke ajjuma ji fu jullit ne ci àddina bi yàlla nga def ñoom benn ñoom ñëpp ñu nangu la di roy sa jàmba sa ndaw la du di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla ñu ngay ñaan yàlla nag ñu may ñu fekke at yu bëree bëri te nga sàmmal suñuy cër luñ ci jëf luñ ci wax muy loo gërëm ci barkal Alxuraan allahuma ya man adra aljamila wa satara alxabiha walam yubaxil bi jarira walam yati ka sitra wa ya azima alafi wa ya xasana tajawusi wa ya sal magfira allahuma ya basila bi rahmatik ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصف ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رب يا رب يا رب ويا سيدي ويا مولاي ويا غادر رغبتي نسألك أن لا تلقتنا بدنيا ولا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعبد الأبدان وشفائها من الأبصار وضيائها وكل أرواح وشرابها وعلى آله حق قدره وضعنا عظيم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأعطى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahi rahmaani rahiim organisation bi fu ñu la taxawloo nga taxaw fa di ñaan ñëpp kun ni mu dugg ci oto bii mu dugg ci oto bii xale yu mag yu góor yi bu kenn dugg ci oto te kenn dugg la am na ku amee loolu déglu ko lu mu la wax defee noonu mbooloo gis bu nu àndee day am kenn ku jiitu kooku moom la moo yor kàddu mbooloo mi doxeel nii doxeel nii ñu ngi koy ñaan ñëpp jigéen ñi nit naan ko jigéen ñi benn góor jug nag bu benn góor jug bu benn góor jug ila sama ñu solul mbay t-shirt yi dugg leen si digg bi. Mizan. ñu solul t-shirt yi dugg leen si digg bi ñu solul t-shirt yi nekk si anglais. Dar. Amaam. Mizan. Dar. Amaam. da nga ma jaarale xale yi ah. déedéet waroon nañu da nga ko da nga leen di tas leen. waaw alhamdulilah alhamdulilah asalaamaaleykum wa bi ñu ngi noonu di mbokk yi jullit yi ñu ngi noonu di dox eh, di dëgmal nag défilé bi fa tabarakallahu di tudd yàlla di dox ndànk ndax xam ngeen ni tudd yàlla qiyaaman wa qu'uudan lañ wax waaw position boo ko defee rek baax na moo xam danga nga taxaw moo tax moo xam dangay ngay dox kon ala kulli xaal ñuy tudd yàlla yàlla nag baat yëpp baax na lool nag baat ci ko tudd baax na lool waaye bu ci gënal mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa mooy sang tur yàlla yi laa ilaha illa mooy tur yàlla bi nga xamante ne yàlla kese kese kese la boo ne laa dax nga lépp ko indi yàlla da ngay indi moo tax ñu naan amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul yàlla jaamu ko di njariñ nag ko jaamu di loraange moom la xay di tudd nii ala kulli xaal dégg ngeen noonu waaw kay bisimilah. ñu ngi ñu ngi nii ala kulli xaal ci yoonu HLM bi ren nag sunu défilé bi dafa dafa dafa xaw a dafa xaw a doy waar gis eh, ndox baa ngi noonu eh, fii taxi bi di génnee moo tax te am eh, ci aada nag traditionnellement fi ne nan daar jàdd waaye nag defuñu ko dañuy jubal waaw dañuy jubal ba ci kanam. bu ñu demee nag ba Kër Nimzaat dañuy jàdd foofu noonu nag am na parents d'élèves yi ñu ngi fa gox yëpp nekk fii ci ci ci ci yu daar daara yi parents d'élèves yaa ngi fa waaye eh, bu ñu mënoon ku ci neex ci kër sa bu ko dañ fay taxaw saafoonte yow nuyu la eh, nga digg kàddu yàlla waaye nag conditions yi ñoo ko matewul ñoo ko mayewul waaw moo tax ñu dox nànk rek allah kulli xaal di ñëw gis nga sëriñ baa ngi nii. du dox moom tamit ne sax nekk si organisation bi ndax ren moom wax dëgg yàlla suñu défil bi dafa xaw a dafa xaw a métti waaye sant yàlla waaye moom dañ koy utal oto na ko doxal waa di dox <laughs> ala kulli xaal nee na xale yi dañ li ci coono moo waral ala kulli xaal ñoom tamit ñuy góorgóorlu ci loolee waaw. donc mu ngi nii alhamdulilah yàlla na yàlla sàmm ñu te aar ñu waaw ñu ngi ànd ak waa Tawhid TV ci liggéey yu mel noonu ala kulli xaal. Euh, oto Serigne baa ngi nii euh, moom ci lay dugg waaye daanaka <laughs> tubaarkalla euh, daanaka du ci dugg du ci ëpp. ngi ànd si sunu sunu sunu frère sunu Serigne ah Bachir nga xamante ne wax dëgg fa yàlla day jógee bu ndar ren otoom dafa dafa dafa kile moo tax waaye ndeysaan dafa daan ànd ak ñun daal otoom di daw ak ñun fu ñuy dugg fa waaye nee na du loolu lu ko teree ñëw défilé day ànd ak ñun dox. xanaa ñu jox ko mu nuyoonte ak ñun rek am bas bismillah li ci yéeme mooy ajjuma gi mu tombeel salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte ak kontaante di am mbégte ak kontaante ci bis bi euh, bis bi dafa dafa di bis bu am solo tombek bis bu bare njëriñ bare ngëneel mu nekk loo xamante ne nii ay ngëneel yu daje la macha allah yan yàlla subhanahu wa taala def ngëneel yi ci nekk yàlla bu mu nu ump yan yàlla subhanahu wa boo jugee ndar di ñëw pour bis mel nii yàlla ngay yëg sa yaram. mbégte ak cawarte ak kontaante ak yëg ni yaa ngi jóge ci bërëb bu sell jëm ci bërëb bu sell bërëb boo xam ni euh, dara nekku ci dara amul dara caaxaan lépp yàlla subhaanahu wa taala la waaye lépp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la di ci kontaan lool. moment bii xale yi di défilé di tudd yàlla euh, lan lay def ci yow. lu rëy lu fort loo xamante ni mënoo ko ame feneen fudul fii. waaw tudd yàlla bi ñuy tudd yàlla mënoo ko amee feneen fudul fii ndax ay xale yu ndaw yu tuuti ndax boo seetloo ñun ñoo daan tudd yàlla ànd xale yi tey xale yi tudd yàlla ñu ànd ak ñoom macha allah mu nekk loo xamante ni fàttaliku yu rëy la yu am solo fàttaliku yu am solo la macha allah. jërëjëf jazakumullahu xeeran eh, Al Bachir eh, Samb jazakumullahu xeeran témoignage yi am na solo lool moom tamit dafay nekk kenn ci daara ji eh, yor daara ni ñun ala kulli xaal waa day tëj daaraam. ñëw xam naa bu amul lu koy wéral sax day ni xale yëpp indi fi ñëw fi waaye gi nga dégg nga ko ci ay kàddoom daanaka fu mu jógee ak fu mu jëm benn la ci moom te it loolu la yàlla dogal ci moom kon nag yàlla na yàlla nangul ñu ñu doxal ki nànk rek pour mën a dem incha allah taala bisimilah. waaw mbokk yi alhamdulilah ñu ngi nii ngi duggu dugg Nimzaat moom laa leen wax lii kon ñun génn léegi moo moo jël corniche bi corniche bi. boo jàddee yaa ngi dugg ci côté HLM yi HLM yi bi ci mujj mooy Nimzaat waaw ren wax naa ne suñu itinéraire dafa dafa changé ndax euh, contexte bi moo ko mayewul nawet beeg ak travaux yi nga xam ne dañuy def waaye sant yàlla alxuraan moo noonu alxuraan moo toll noonu waaye dañuy delloo waat njukkal xaaj Chérif Touré bi sàmm nga xam ne bisam bii bis bu rëy la da ci jàngale lu bare. waaye moom gisu ci boppam boo waxee mu ne bisu xale yi la boo waxee mu ne bisu alxuraan la waaye lépp moom la ndax euh, léeg-léeg nga dégg olof naan buy tagg jigéen ñi na ko yaa fi xaar waaye moom it moo ko liggéey ala kulli xaal yàlla jàppale ko ci nag waaw tàyyiwul benn yoon ñun ñi ay élèves am sax di ànd ak moom ci liggéey bi wallaahi buñ demee ba nga xamante ne liggéey bi métti na moom jom la ñuy wan mu ngi jeex tàkk te jamoom maa nga ne suñu jom. donc ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax di ko ci ñaanal yàlla yàlla defal ko ci barke di ko ci ñaanal yàlla yàlla guddal fanam barke sax am na ko ala kulli xaal bés bi ko xool lu ñu koy organiser ak nu ñu koy defee aujourd'hui am nañ tey jii ay ay référence ñun tey jii nekk nañ référence ñu bëri ñu ngi roy ci ñun du màggal bis bi ndax 83 ba léegi nag du du du ay du ay du année bu ndaw ala kulli xaal waaye loolu yëpp dañ koy sante yàlla sàmm jazakumullahu xeeran ci turu daara ji sàmm jazakumullahu xeeran ci turu jàkk ji sàmm jazakumullahu xeeran ci turu ancien élèves yi waaye jazakumullahu xeeran ci turu parents d'élèves yi su ma ko sañee wax kontaan nañ bëgg nañu gis nañ ni ñuy jàppee xale di nga jàppee xale yi gis nañ énergie bi nga def ci xale yi ngir ñu mun a jub gis nañ énergie bi nga def ci xale yi ngir nga xamante ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ci xeetul nga def ko ci ñoom jërëjëf ala kulli xaal xale yaa ngi noonu di tagg di bàkk yàlla ndànk rek ala kulli xaal parents yi xam naa ñoom tamit ñu ngi préparé ñii ñu ngi daara di ñu xaar ñii ñu ngi seen kaw kër terrasse yi di ñu di ñu di ñu séntu waaye ala kulli xaal ku ne fu ne ñu am na fu ne ñu suñu ko jëyee waaye nag tey xam naa danañ defal surprise ndax danañ jàpp ko ñu bëri ñu war a jaar du ñu fa gis waaw sant yàlla. ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salamullah la ilaha illallah la ilaha muhammadur rasulullah alayhi salam illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salamullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salamullah la ilaha illallah la ilaha illallah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 mu ngi koy wax xaaj Mouhamad Sàmm moom bis bi da ko ñor lool da koy fekk arab saudi mu bàyyi lépp li muy def daal di ñëw ngir bis bi ànd ak ñun nag ci lépp ànd ak ñun ci annonce yi ànd ak ñun ci yóbbu lettre yi ànd ak ñun ci woote yi ala kulli xaal kon nag moom dañ koy jox oto sax da ko dugal waaye dana damay dox ànd ak xale yi tudd yàlla ala kulli moom daari da ko neex moom sëriñ bi da ko neex moom alquraanul karim da ko neex ñu ñu wax ko rek muy waxee témoignage am si bis bi ala kulli haal bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام أيها الآباء والأمهات نسلمكم تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة في مناسبتنا هذا اليوم يوم القرآن القرآن الكريم أوله بركة ورحمة وبرهان لأولادكم كما قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara alqur'anu alkarim huwa kitabun mu'jiz alladi xasa allahu bihi hadihi alummata almuhammadiya anzalahu allahu tibyanan li kulli cheyin wa hidayatan linnaasi kaafa qad jaakum min allahi nuur wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittabaca ridwanahu subula alsalam wa yuxrijuhum min alzulumaati ila annuur wa yahdihim ila siraati mustaqim sadaqallahu alazim mbokk jullit yi gannaaw bi ni sante yàlla julli ci sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu képp koo xam ni way juru élèves yi nekk fii ci madrasatul abral lil wildaanil axyaar ci bis bii nga xam ni dafa nekk bis bu màgg tombeek yow mu màgg sayidul ayyaam mu yowmul jumaa ci bis bi nga xam ni xale yi ñoo dellu si waat tey di leen bégal ci bisu alquranul karim ñu ciy waxtaan ci mbirum diine islaam di leen fàttali kan mooy yàlla ñu leen di woonak ci bis bi di sàkku yàlla mi nga xam ni dara taw ko subhaanahu wa taala mu nangul nu ko nangul leen ko képp ku fi ñëw yàlla na yàlla fay yiw ñëw bii bi ngay ñëw sa dikk mu nekk luy far bàkkaar booy dem muy luy bind bàkkaar booy dem muy far bàkkaar ñu ngi leen di ñaanal nag yàlla yal yàlla mooy ñu teewe ko ci at mu jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf mbokk yi woote baa ngoog woo na parents d'élèves yi woo na julit yi woo na képp ki dëkkandoo waaye wax na tamit lan mooy solo bis bi wax na tamit lan la bis bi di jëriñ doomu aadama yi ala kulli xaal julit nag saari'u ila magfirati min rabbikum saabiqu ila magfirati min rabbikum yàlla moom bu la rek fa firru ilallahi xëttal dawal foo toll na nga daw daal ñëw ndax yiw yombut de yiw yombut sa jamono dafa naqari nit lu ko mooy loo yàlla lu yomb la waaye lu ko mooy lu bari la te am na tuyaaba yoo xamante ne yusuf ibn sayyiat yàlla ci yàlla boole tuyaaba mel ni kon nag ala kulli xaal ñu ngi taxaw ak sëriñ bi taxaw sëriñ bi Cheikh Talibou Samb Alhaaj Cheikh Talibou Samb tey programme bi xat na lool de bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi yow alhamdulilah ba alamin di sant yàlla mi ñu fekkee ren ni ñu fekke woon daaw mu tombeeg bi su màgg mu yemul jumaa di ñaanal képp koo xam rekk bés bi yow bég nga ci yal na yàlla dool le ñu def seen alal ñëpp tabarkallah muy sangu bés yi ñun daal bég nanu ba xam lu la ñuy wax waaye daal ñu ngi ñaan ñun ñëpp rawatina ancien élèves yi nga xam ni at mu jot lépp ñoo koy taxawee ndax ñu jaar ci daara ji na waaye am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla ñoom bàyyi nañ xel daara ji am ñoo xam nag ancien élève lañu pendre élève lañu waaye bu ñu signé amatuñu jàmm mooy lan ne bés bi dox na lépp baax alquran di jolli ca kaw di gërëm nag cameraman euh, euh, télévision Tawhid TV seen taxawaay ci daara ji waaye seen taxawaay ci réew mi di ñaanal directeur ba ba ci ki gën a tuuti ni ñu ko waxee woon ci euh, avant première bi ci plateau bi yëpp di ñaanal mboolem ñu jóge ci région yi ñëw ñu jóge dëkk ak dëkk ñëw ñu jóge Arabie Saoudi ñëw jóge bitim réew ñëw yëpp ñu ngi ñaanal waaye di ñaanal dëkkandoo yi ndax kat lii mi ngi bëgg yàgg di ñaanal ñi képp ko am daal bés bi safoo nga ko yaan yàlla may ñu fekk ay at yu bare képp ku fi teew yaan yàlla fekk aajo asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jërëjëf ilaha illa allah la ilaha te élève mooy ndongo daara yi nga xamante ne dañoo jaaroon ci daara ji ndax daara ji nag macha allahu taala yàgg na lool am na ñoo xamante ne alhamdulilah yàlla def na leen tey ay kilifa ba euh, bis bi ñoom ñoo ko taxawal seen bopp ñooy jël seen i alal def ko ci ñooy jël lu ñu am ak lu ñu amul yëpp def ko ci ngir rek yëf yi daal di sotteeg jàmm ak salaam kon nag sëñ taal moom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu yàlla di ko ñaan yàlla na yàlla sàmm ko te aar ko taxaw ko ñu ngi nii nag di dellu waati ci tànt bi ala kulli xaal ndax tey waxtu daf ñoo xaj daf loo te xam nga ni àjjuma day bis boo xamante ne bisu màgg la waaye bis bu xaw a xat la ala kulli xaal ndax 15 13 heures fu ñu da rek nit dañu bàyyi ñu def daa dem julli ji waaw yaa ayyuha alladina amanu iza nuudiya salaati min yawmil jumaa fasaa ila dikrillaahi wa zarul bay'a loolu am solo la xiti bi ñi nga ànd ak yéen bi léegi xool leen jigéen ñi macha allah seen sanse ñuy sanse ñoom wane jigéen ñi jullit nii lay mel ala kulli xaal jigéen jullit nii lay ci mbedd bi jigéen jullit nii lay ci ah, marché bi jigéen jullit nii lay mel liggéey kayam jigéen jullit nii lay mel ci këram ala kulli xaal sol lu jot euh, fexe ba mën xam diineem fexe ba xam ay farataam fexe ba xam li ko war waaw daara ji noonu lay def daara ji ala kulli xaal du yem ci jàngale la waaye day yem day day continuer di la yar waaw bëri na jigéen yoo xamante ne tey jii ñii seen waa kër xam ngeen ndakaaru lu mel duñ leen yar yaru yaru yaru jigéen waaye ala kulli xaal bu ñu daara ji rek sëriñ bi dina ñu commencé liggéey loo ñii mën na leen tey yaa leen di bare ñii mën na leen tey yaa leen di menace ñii mën na leen tey yaa leen di raxas douche bi si loolu nañu tàmbee liggéey moom mun yooyu yëpp fa alakul xaal donc su ko defee ñoo nekk nii ñii ñëpp ci daara ji lañ nekk ñii ñu ngi sol seen i col yu vert ñii ñu ngi sol seen i col yu marron waaye li ci gën a yéeme mooy yëre yu weex ñu sol yëre yu weex ñu sol dafa adapté ak bis bi ndax ajjuma koo xam yoonu saa sallam la ci moom mu naan sol leen yëre yu weex waaye ajjuma ku waaye dem tey bisu tey bi suñu confrance bi thème bi mooy la paix mooy jàmm te fu Sénégal di traversé monde di ko traversé jàmm mën cee ma jàmm rek nañu wër ala kulli haal bu ñu amee jàmm rek ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp noppal ko bu ñu amee jàmm rek dëkk bi daal di naata naataange daal di am bu ñu amee jàmm xéewal daal am moo tax ñu sol seen yére yu weex wala ne tey ala kulli haal jàmm rek moo moo mën a boole doomu aadama yi. jàmm la ku ci nekk di gis boppam ala kulli haal waaw jàmm si ngay tax talee julli jàmm si ngay talee jaamu yàlla yàlla jàmm si ngay tax si ngay tax pour teraanga kon mu ngi noonu jigéen yaa ngi noonu ndeysaan leen ginnaaw ala kulli xaal di tudd yàlla di ko. baale yàq de waaw gis ngeen ne défilé bi lay doxee. waaye rek ñu ngi jégalu bu baax nag sunu dëkkandoo yi di jégalu bu baax tamit mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo bokk tali bi ñun dañoo ñëw sax jël seen cër waaye ñoom desaan dañ ciy ànd ak mbégte ndax ko romb ne ko ñu ngi jégalu mu na la alhamdulilah jërëjëf lii kay tubaarkàlla ndax yàlla mel noonu tudd ko ki tudd yàlla ki dox ngir yàlla kooku dañ ko war a jàppale kooku dañ ko war a dimbali. taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwaan tali bii ñu nekk nag mooy tali Angle Mousse bi fi mu doon dañuy dem jëm ci tente bi ala kulli xaal koñ bi ci yëpp ci Angle bokk bokk ndeysaan dëkkandoo yi ci ëpp ñu ngi daara duñu xaar ndax nañ leen xamal ne daal vraiment leen sunu defile bi duñ ci def défilé boo xamante ne daal défilé bu kule parce que yoon bi mayewu ko tali tooy na ndax bu xaw naa doy waar. waaye nag fu ñu romb rek ndeysaan nit ñi jël seen i portable di di di di kii di di filmer ngir rek bànneex ci bis boobu kon nag ñu bàyyi xale yi incha allah taala. alhamdulilah mbokk yi ngeen oto yi yëpp rek ndeysaan ci daar ji parents d'élèves yi mu jaral leen ndeysaan ñu bàyyi seen seen seen liggéey jël seen oto def ko essence essence ak essence du mu méttee ndeysaan mu chéré waaye alxuraan jaral na leen ko oto yi nga gis ñii seen ñii. ñoom ñëpp ndeysaan dañoo ànd ak ñun ci bis bi ngir bëggee ak ñun dox di doon nank accompagner xale yi wane ne ñoom tamit si bis nañ bokk waaw waxuñu ñoom kenn du taxaw nañ jox leen njëgu essence kenn du taxaw ne leen déedéet sama oto dafa yàqu déedéet waaye dañ dañ koy def ak fierte dañ koy def ak passion dañ koy def ak bëggee te yëpp macha allah am ñoo ñi ci ëpp nag dañuy xam nga mag ñi mun ñoo dox dox bu yàgg su ko defee ndeysaan euh, su maa ngeen bokk ñu ne ko waaw mënu nga yóbbu leen jazakumullah xeeran yàlla na ko yàlla fay waaw ndeysaan kii nii oto borom fe oto oh, defe naa Citroën la moom tamit parent d'élève la moom tamit ndeysaan euh, chaque année day bokk ñun bi gis bi tata yéen gis noonu ci kaw tata yi tamit mat na juróomi tata dañ ko loué am benn ancien élève xam moo ko loué ngir bëgg ci xale yi xoolal dëkkandoo yi ndeysaan génn nañ di ñu xool asalaamaaleykum wa rahmatullah ñii ñëpp ndeysaan dañoo ànd ak ci liggéey bi jërëjëf waaw waaw tubaarkàlla ndeysaan ñoom ñoom bu xale yi romb rek ndeysaan dañuy bëgg lool ñii seen seen doom yaa ngi ci daara ji ñii sax seen doom ñu ngi ci ci défilé bi ala xaal kon nag mu ngi noonu mbirum tali mu mel noonu su ngeen état tali bi lu mu mel moo waral tey jii mënuñoo vraiment défilé comme nuñ ko bëggee ndax tali yi léeg-léeg dafay taar dafay dafay dafay dafay kii waaye nag sant yàlla nii na ko yàlla bëggee waaw parents d'élèves yaa ngi ni gis ngeen ni ñu seen kaw terrasse yi ah ñii ñu ngi seen buntu kër yi waaw ne sant xool xale yi waaye nag ren moom xale yi am may ñu leen may ñu leen temps bi nga xamante ne moom lañ leen mm, yàgg di may mooy taxaw saa xonte ak ñoom nuyu leen way leen ndeysaan jàngal leen alxuraan tudde leen yàlla ndax contexte bi moo ko moo ko laaj waaw jazakumullahu xeyran waa Tawhid TV ñu ngi ànd ak ñoom ala kulli xaal ci liggéey bi mel nii donc yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla tax daara ji lool ala kulli xaal jazakumullahu xeyran ak jërëjëf jërëjëf alhamdulilah ñu ngi dugg ñu ngi génn angal mos nag dugg Colobane alors Colobane nag ala kulli xaal naa ko léegi ku ko wax xel yëpp dem ci jaay ku ko wax xel dem ci xel yëpp dem ci fëgg jaay waaw mu doon nag gox bu xaw a xat tuuti waaye ñoom dañuy comprendre ndeysaan ñoom dañuy comprendre waaw ñoom macha allah euh, Colobane ñoom dañuy comprendre ndax euh, lu mu xar-xar-xar ah da ngay gis ne alhamdulilah mbokk yi ñu ngi dugg Colobane euh, xaw na xat tuuti nag buñ ne kolobaan nag xel yëpp nekk ci jaay. bu buñ nee Colobane xel yëpp nekk ci jënd buñ nee Colobane xel yëpp nekk ci fëgg jaay waaye suñu dëkkandoo nañ ñu baax bëgg alxuraan ndax place yii nga gis nii xale eh, nit ñi toog fi di fi jaay ñi ci ëpp ay ndongo daara lañ waaw ñi ci ëpp dañuy bëggee daar ji ñu ci ëpp dañuy safoo daar ji scooter bi nga gis nii taxaw nii ki ko yor ancien élève la moom tamit macha allah day waaw day waaw dañuy dañuy dañuy dañuy escorter daara ji Colobane a noonu waaw macha allah ànd ak sunu mbokku Tawhid TV <coughs> nga xamante ne ñoom boobu ba léegi ñu ngi eh, collaboré ak ñoom ci liggéey bi mel nii ñu ñàkk kayaan lool ndeysaan bu ñu ñëwee daanaka dañ ñi gën a bëgg sax liggéey bi waaye nag wax tawhid wax diine ku wax tawhid wax alquran ku wax tawhid wax gone tawhid may wéetal yàlla yàlla ku wéet la moom rekk am moom moom rek am loolu qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufaan ahad yàlla jurul kenn kenn juru ko moom kenn la te ñi ñëpp ci moom lañu bàyyi bëgg mooy seeni kilifa mooy seen lépp waaw waaw non non day ñëw day ñëw day ñëw day ñëw yëg day ñëw yëg ah non maa ci suuf. la ba léegi ñu ngi kolobaan sunu magu daara sunu Serigne Cheikh Alhaji Ousmane Diop maam Ousmane Diop serviteur de l'islam moom serviteur de Dieu serviteur même du prophète ndeysaan nga xamante ne ala kulli xaal activité am yëpp da koo jaay yàlla jëndee ko lan l'islam soxlawul dara. bëggul dara ku ko miin ci tale yi ku ko miin ci jotaay lislaam yi nga xamante ne moom lislaam rek moo ko tax a jóg moom tariqa cheikh rek ko tax a jóg moom mag ñi baax yi ñëpp moo ko tax a jug ci daara ji la nekk daara ji la génne dañ koy woowee sax ancien élève waaye danaan moom du ancien élève ba léegi élève la ba léegi ndax ala foo ko fekk day jàng day jàngale mu ngi nii moom la ñu a jox mu sànni ci ay kàddu joxe euh, participation partition ci amul jot nag ay sacrifice yu métti la def ngir fekkee bis mi waaye buñ nee défilé rek suñu xel yëpp ci moom la jëm ndax moom looloo ko ñor ci conférence boo waxee moom mooy conférence moo si ñor yëpp défilé wi la waaw wax yemul ci loolu alalam lu mu am indi ko ci daara fu mu xam fu mu ne fu mu dem lu mu rëy rëy rëy balaa moo tudd dara daara la ñu ko tudd kon nag Hadj Ousmane Diop kàddu gaa googu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi niw ñëpp mbokk di di ziar ñëpp waa Tawhid TV di di niw sunu mbokk mi di Cheikh jaw imam Cheikh Diaw nga xam ne ñun tey moo ñu fi teewal moo ñu représenté fii ci daara ji ñu yàgg bokk di def lii di niw nag sunu sëriñ nga xam ne lépp moom la ginnaaw way juri muy Cheikh Talibou ya sàmm ndax lu ñu xam ci diine lu ñu xam ci alxuraan yàlla ci moom la ko jaarale ñu ngi koy sant di ko gërëm fu nu toll cheikh nag imaam cheikh li mu wax ñun ñëpp la waxal fu mu teew ñun ñëpp la teewal ndax ñun ñëpp ay bokk daara lañu ñoo bokk nekk ci daara ji ba tey moo tax ma di wax ne man duma ancien man élève ancien la waaw di bég nag te it di xam ne lii l'islam la défilé bi li tax mu am solo mooy ci la ñëpp xamee daara ji ñu yàgg ko def ay ati ati at ay édition édition ñun ñii ñëpp taxaw fii tey ñoo nekkoon démb ay xalewu trois ans quatre ans di koy def ba tey yàlla dogal suñuy doom ñun mi ngi ñu ngi ci lii kon nag sëñ Talla Samb yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla taxaw te it muy koo xam ni yar nañu yar yar yar gu yéeme mooy yar nañu ci doylu yar nañu ci gëm yàlla yar nañu ci ci doylu yàlla mais li gën a neex ci moom mooy nim ñi yare ci ñu bëgg alquranu karim ba dara du ko fee féete kaw rek ci ñun kon nag yéen tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant sunu mbokk taalibe bi di imaam Ali Seck seen taxawaay rafet na Cheikh seen taxawaay rafet na moo tax euh, damay fàttali euh, benn wax boo xam ne yéen ñëpp ko fekkee woon mooy bés am ku ne woon waaw lii ñun buñ fi nekkatul nu muy demee ma ne ko bu soobee yàlla kanam la jëm mais dootul jellu gannaaw ndax lool loolu moom mooy lislaam mooy philosophie Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te nag mbokk yi ñu gën a fonkaat daara yi mm-hmm, mm-hmm. gën a fonkaat alquraanul karim mm-hmm, parce que nañu xam ne dund àddina dafay jeex te am na dund boo xam ni du mës a jeex te dund googu alal du fa dund lekk kenn du fa dundee lekk kenn du fa dundee ndox mais ay xasanaat muy ay yiw lañ fee dundee te yiw te comme xamuñu dund at dund abadan la war a doon kon lu ñu am ci yiw doyul kon mbokk yi nañu gënaat fonk alquran gën a sonn ci daara yi lu waay am muy dërëm di fukki dërëm am na liggéey boo xam ni mu ngi ci loxo ñoo ñoom imam Cheikh te ñoom ñii di wax nag ma wax leen ne ñoom ñi ñëpp ku ci nekk am nga qualification ku ci nekk yaa ngi liggéey ndax daara ji da ngay jàng alquran di jàng école di def sa formation ba ba yor sa liggéeyu bopp mais tey am na liggéey boo xam ne ñoom ñii ñoo ko yore di ko doxal muy benn institut boo xam ne ñi ngi koy liggéey fii ci. Euh, fii ci Gandiaye kon ah. Gandiaye de kon ñi ngi ci woo ñëpp na ci ñëpp ñëw jàpp te képp koo xam ni donte 1000 francs la nga def ko ci daara mbaa nga def ko ci liggéey jàkk dañ la koy atte ku tabax jàkk lëmb wala ku tabax daaray lëmb kon nag mbokk yi loolu moo doon participation bi nga xam ne bëggoon nañ ko ci def di sant waa Tawhid TV bu baax ak équipe technique bi ngeen àndal yal na leen yàlla yëkkati bi événement bi dooree yàgg na ce par la première fois yàgg ngeen ànd ak ñun diñ jàppale yal na yàlla fay leen yàlla taxaw leen bu baax incha allah taala kon imam Ali bismillah macha allah jazakumullah xayran am na solo macha allah so Cheikh Ousmane macha allah kaddu gi am na solo alhamdulillah ñu ngi leen di sant bu baax di sant yàlla suñu bés bi di bàkk suñu boroom di kañal alquran di wane ñu daara lu mu am si Sénégal lu mu am si àdduna ñu leen di ziarat bu baax di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di leen invité si bés bi nag bés bi lii moo nekkoon défilé bi ñu leen si invité nag si bés bi incha allah tey incha allah ren moom thème bi mooy jàmm la oustaz Aboubacar Faye mooy mooy def thème bi la kon na si ñëpp teew incha allah ku si teew rek di nga fi jëlee dara incha allah di fi jëlee xam-xam ñu leen di sant bu baax di sant anciens élèves yëpp si seen njiit ba ki gën a mag ba ki gën a ndaw ñëpp ñu leen di sant. ak suñu trésorier waaw ak suñu trésorier Omar Sy mi ngi nii taxaw lépp loo xam ne moo jëm si wàllu yi rek moo ko yor. lépp loo xam ne rek si loo si loo xam la jaar rek dina ñëwaat si daara ji allah ñu leen di sant bu baax di sant anciens élèves yëpp yëpp yëpp yëpp dana ko si président ba si ki si gën tuuti ñëpp rek ñu leen di sant yàlla na yàlla yokk xéewal gi yàlla barkel liggéey yi yàlla barkeel njaboot gi ñi nekk bitim réew itam ñu ngi leen di sant anciens élèves yi nekk bitim réew macha allah sent seen seen rafet na seen taxawaay rafet na parents d'élèves itam seen taxawaay rafet na dëkkandoo itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax am na solo macha allah ñu leen di gërëm baax di leen sant di gërëm waa Tawhid TV bii di taxaw mbir mi événement bi am na solo macha allah. kontante bi boo xamante ni day continuer chaque année lii moom biñ ko dalee organiser yàgg na waaw lii moom sant yàlla rek quoi sant yàlla rek parce que bi ñu nekk xale nekk tout tànk xam nga nekk nekk primaire xam nga nekk lycée ba dem université ba jàng ba commencé liggéey ba léegi nii ñu continuer di koy organiser. kon defuñu lu dul sant yàlla rek te di sant bu baax Cheikh Daara Buya Samb mi nga xamante ni moom moo ñu jàngal alxuraan léegi bu ñu jàngee alxuraan gannaaw bu ñuy tari tari faarixa tari ay saar yëpp suñu xel day dem si Serigne Taali kooku moo dugal si ñun liif ba ta sëy ba alif laam miim waaw kooku moom dañ koy sant te sant boo xamante ne am na fu mu commencé te amul fu mu yem waaw ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ancien élèves yëpp ancien mënoon nga ñëw jàng si dem après nga dem sa nekk si yeneen affaire dootoo fi ñëwaat mais da nga ñëw jàng après ñu lay woowaat nan la ay ñëwal jàpp si liggéey bi liggéey bi ba mu yegg fi mu toll nii waa ñi leen sant yéen ñëpp ñi ngi sant borom télé bi tamit Tawhid TV ñi leen sant bu baax di leen gërëm ci gërëm bu baax waa HM Angle Mousse tamit ñoom tamit kenn demul ñu des waaw parce que suñu parents yi ñoom ñoo waral lii yëpp ndax quartier bi boo xoolee li ko seek Colobane nag marché HLM marché Colobane marché HLM jeunes yi mënoon nañ mel neneen mais meluñu noonu fii jeunes yoo jeunes yoo xamante ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay borom baax lañu ñëpp ay borom baax lañu macha allah macha allah kenn amul seen fay yéen ñëpp kontaan nañu bu baax kontaan nañu bu baax merci beaucoup. ñëpp di jël quelques parents d'élèves rek ñu wax ñu nu ñu dundee bis bi bismillah bismillah asalaamaaleykum Diouf ñu ngi lay baax di la laaj noo dundee bis bi bismillah. waaleykum salaam wa ñoo ngi leen di ziare bis nag mbégte rek lañ ci am ndax loo def. ñeent fukki at ak benn ku ne xam ne loolu moom lu wér la lu dëgër lu dëggu la ñi ngi sant njiitu daara bi muy sëriñ Talibe Samb ndax képp koo xam sa doom jaar na fi ci daara ji wax macha ci lu neex ndax waxuma yar bi ci koñ bi koñ bi taali jëru fi joo xam ne bu fu daara ju woon dana ci feeñ ndax li am fii koñ bi ah bari na koñ yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah amuñu lu mel noonu ndax. xale yi yem nañ yem goo xam ne doo leen dégg ci loo xam ne lu dul noonu la naka su dul noonu moo tax kon ñi ngi sant sëriñ taalibe bi bu baax ci daar ji ndax lii bu amuloon ci koñ bi moom mënu foon a ñàkk waaw mënu ñàkk koñ bi ñeent fukk at na benn la lu ko am kenn ku ne xam ne lu wér la lu dëgër la te lu dëgg la te yoonu yàlla rek moo man lii alquraanu karim gi nga xam ne mi ngi def ci xale yi yàlla na ko ci yàlla fay ab yoolam ndax al yoru alxuraan kenn mënu ko fay suñu borom rek ko mën a attan moom mi ko digle xam-xam bii mu def ci xale yi def na ko ci am am ñoo xam def na ko seen i wayjur def ko ci seen i doom a ah, loolu nag macha allah du doon loo xam ne lu woyof la kon ñu ngi koy ak cant lañ ko waral ak ngërëm ñun parents d'élèves yi bég nañ ci kontaan nañ ci ñaan yàlla mu sax wér lu ay téeméeri téeméeri at daara ci nekk incha allah kenn du yow macha allah alhamdulilah. waaw dem leen dem leen waaw. Ah, may nekk may nekk may nekk may nekk taxaw mbokk yi ñu ngi taxaw ak parents d'élèves ñoom ñu ngi nii ndeysaan macha allah ñoom ñëpp ànd ak ñun ci défilé bi fajar ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ci bis bi ñoom wane nañu bis bi seen bis la ñu ngi ànd ak taxaw ak seen sunu sëriñ xaaj Chérif Tall bi Samb euh, nan ngay wax parents d'élèves salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa santaat yàlla bu baax di gërëm ndeyu daara yi le nga xam ni tey ñoom ñëpp sancel na alquran ñoom ñëpp sancel na alquran ñëw ngir yàlla démb lan tàmbali ta tey dikkul olof wax ni lépp loo jàpp muy dëgg rek jàppal kon yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla barkeel leen di ñaanal mbooleem koo xam ndek bés bi safoo nga ko yal na yàlla seen limal si lépp yal yàlla barkeel seen njaboot gi bégg nanu yal na yàlla bégg kon nag imaam comme tey ajuma waaw gànjaay moom alhamdulilah loolu maa ngi koy bàyyi imaam Cheikh Diaw incha allah. waaw alhamdulilah kon nag sëñ Tall ñoom mu ñu la yeewee nga dem ci xale yi léegi ñu ngi waxtaan xaajatu sunu yaay sunu wayjur moom la ñuy tuddee Baye Faaru Daara ji xaaja Fatou Kiné Kanouté xool leen nii paraay li ñu sol nii macha allah niróo la bi macha allah ku ko gis nga xamante ne ñi yem sax ci solo waaye dañuy solo sa sëriñ bi. solo sëñ man léeg-léeg ma kaasa yow ñu ne ma yow bokkoo ci waaye xam nga ni mos lii nii rafet na lool yal na leen yàlla fay yiw yal na leen yàlla taxawu bëgg alxuraan moo tax ngeen def ko waaye bëgg sëñ taali tamit moo tax ngeen def ko bëgg seen doom réussir moo tax ngeen def ko kon yàlla bu yaakaar tas si xale yi yal na yàlla barkeel ba xale yi li ngeen namm ci ñoom ngeen am ci lu kawe seen njort loolu yomb na yàlla yàlla mën na ko jub la yàlla bëgg te ku jub rek noppalu fi mu toll nii li xew ci dëkk bi yëpp alhamdulilah ba déggoo ci benn kii waaye nag dëkk bi tàng na lool waaye na yàlla ñu yàlla sàmmal boppam tax euh, sunu yaay nooy wax tey ji si turu parents d'élèves yëpp waaw li may wax si turu parents d'élèves yi di wax alhamdulilah ba pare di nuyu nag membre yëpp di nuyu parents yëpp di nuyu sunu doom yi di sant yàlla nag bu baax a baax a baax ndax foog naa ne ren mooy quarantième édition te boobu ba léegi si kàttanu yàlla ñu ngi teew ndax sama rakk bi nekk France di caat Omar am ñaari jabar tey fii la doon jànge samay doom macha allah ñoom ñëpp fii la ñuy jànge ba pare nañu ku nekk ngay wàcceel sa bopp kaami loolu yëpp sant yàlla sëñ taali nag dañ koy ñaanal bàyyi koog yàlla yàlla moo am fay yal na ko yàlla fay yal na ko alxuraan fay sagal nañu sagal na sunu njaboot ndax sunu doom yaa ngi nii macha allah munoon nañ fi ne di taxawaalu may taali daal dañ koy ñaanal wér ak gudd fan moom ak ñëpp nag di nuyu na parents yaay yaay yi nag kenn du ñoom yaay yi kenn du ñoom waaw yaay yi kenn du ñoom mu ñuy sant nañ leen sant yaay yi bu baax a baax yaay yi ñooy sonn suñu ñooy sonn ci xale yi suba ba léegi maa ngi toog koo gis mi nga gàddu doomam indi ko koo gis mi nga bañ leen nuróole ñëpp a jënd ngir taali ak arxuraan kon nag ñu ngi leen di sant di la gërëm Cheikh Diaw yow sa yaay laa maa ngi lay nuyu di la ñaanal di ñaanal sama doomu ndey ja yal na ko yàlla xare àjjana firdawsi jërëjëf Seck kontaan nañu waa Angle Mousse ak HLM 6 ñëpp nga nuyoo Cité Port ñëpp nga nuyoo macha allah kon nag euh, xanaa ñu bàyyi suñu yaay yi rek ngeen egg ci macha allah yal na leen yàlla fay yiw yal na leen yàlla taxaw euh, waaw euh, ba léegi waa Tawhid TV ñu ngi ànd ak ci daar ji ala kulli xaal yaa ngi noonu di dugg ñu bëgg waxtaan ak yéen ci waxtaan bu rek ala ci daar ji léegi entreprise la daara ji usine la daara ji euh, dafay defaraate comme loo waxee mu am loo xamante ne parents d'élèves bi yàgg nañ ñu ko ñaan yàgg nañ ko bëgg waaye yàlla dogal na ko mooy fu ñu toogee nag nga xamante ne vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy nekk xale yi ñu am benn projet boo xam ne projet internat la projet institut la projet la boo xamante ne ala kulli xaal dañuy jël xale yi euh, prise en charge lay doon pour carrière am bu gàtt jëm ko yar boo leen xoolee ni nekk sama ginnaaw boo leen xoolee xam ngeen euh, lii mooy sunu projet bi nga xamante ne moom lañ bëgg a def gànjaay gànjaay nag mu ngi nekk ca Kaolack ci yoonu Kaolack la nekk parent benn parent di def moo fa yëkkati 1000 mètres carrés may ko sëriñ bi may ko daara ji sëriñ bi amul luñ mu ciy def lu dul alxuraan barabu alxuraan karim mm, lancement bi def nañ ko la kulli xaal ba nga xamante ne ba ñu ko defee parent d'élèves yi ñëpp dañu ko approuvé expliqué leen leen lan moo koy financé ñaar moo koy financé expliqué leen tamit yan jéego lañ ci explique leen yan modalité lañ koy tabaxee am na benn sunu benn bon du ko sañ turam waaye bon volonté boo xamante ne moom jël na en charge bi tout ce qui est brique kon kooku dañ koy ñaanal yàlla kon xam nga ne ko yëf yi sotti na ba noppi euh, lii sama ginnaaw moo nekk plan bi de manière très détaillée donc bu ñu xoolee lii yëpp alaakulli da lay expliquer am na nag format fichier électronique. boo xamante ne incha allah ku ñu intéressé rek boo kon boo ñu contacter rek dina la ko envoyé. dafay am jàkka am ay néeg am ay barabu jàngukaay am espace de loisir boo xamante ne xale bi bu jàngee ba noppi dina fa mën a nekk féex féex tuuti féex tuuti. formation bi nga xamante ne nag mooy bugga a defal formation xale bi formation bi original lay doon. Euh, Dakar néew na am na dama ne amul nag am na waaye néew na nga gis joo xamante ne dafay am alloué am seenu daa bopp di bind formation bi dañu rek transposé ko dara li ci changé kay may xale bi day nekk ak ñun bu nekk ñun ala kulli xaal ñu koy yar nag di ko jàngal ba mu mokkal alxuraan su ko defee ñu mun ko libéré am na yeneen bëgg-bëgg yoo xamante ne dañ fexe ba xale bi lépp lu mu yittewoo ci addinaam. moo xam français la moo xam anglais la ñu defal ko ko ala kulli xaal. mais daal ñu ci woo parents yëpp euh, liggéey la boo xamante ne nag euh, jaayante la. liggéeyu toolu yàlla la. du yàgg mukk de. waaye ala kulli xaal bu ñu jógee tabax ko rek am yéene defar ko rek lay yegg moom te yàlla mais nag parents d'élèves yaa ngi ci cotisé am nañu ay reçu ñu ngi joxe reçu for am na reçu boo xamante ne tarif bi francs la am na 2000 am na 5000 am na compte compte yi euh, après incha allah taala mos nga moo nekk ci suuf waaye suñu réalisateur bi dina ko bind noonu ci suuf nga gis noonu mooy compte yi nga xamante ne loo fa dugal rek incha allah taala bu ñëwee ci banque bi rek dinañ ko mën a jël daal di koy jëbal ñu yor liggéey bi kon nag ñu ngi ci woo parents d'élèves yëpp ku ci mën participer rek. Euh, nga participer nga xamante ne fu dugal yaa ngi dugal ci néegu yàlla fu nga dugal yaa ngi dugal ci toolu yàlla ah mbokk yi doomu aadama ngay lebal mu lay kali kalloo waaye yàlla ku ko mu fay la te yàlla dafa mën fay man jaa abil hasanati falahu ashru amsaliha yàlla ku ko lebal benn mu fay la téeméer mooy wala mu fay la fukk waaye nag ah ka alfa ka alfa sanati mimma taudun moom ay mbiram suñu xel rek dañ koy jàppee waaye mbiram jéggi na loolu kon ñu ngi ci woo jullit yëpp incha allah ku ci am looy contribuer rek ñu contribuer su ko defee très rapidement nag ñu jublu ci tabax bi daal di fay loger xale yi incha allah taala ak paana bu am nam rek ñu yar sa doom rek dugale fa incha allah in uridu ila islah ma stataat wa ma tawfiqi illa billah ñu ngi dem nag ci programme nag programme conférence bi ak waa Tawhid TV jërëjëf bismillah